de tamit ak gouverneur mu gouverneur ou région bi préfet wu Kaolack maire bi di Serigne directeur général Pape Mademba le directeur entrepreneuriat Sambafal, commissaire central ak force de défense et de sécurité yep ñew biñu ñëwaat gir. Bok and ak yow cérémonie officielle bi day wane cofeel day fi son excellence monsieur le président de la république Makisal, Sall Medina Baye fi mu tek diine ak fi mu tek gamu ndax tay ci bi mu indil bopam ziaram, ndokel ci bis bu mag bi di bisu fàttaliku ganek àdduna gën gi mindéef Seydina Mohamed aleyhi salaatu waaye mu ni ginnaaw bi mu ñëwalee boppam ba noppi dafay yabal délégation bii ma lim léegi ñu indilaat ko ziyaaram yeesal ndokkeelam waaye yeesal nuyoom jëmale ko ci pays bi yépp bis bi di bisu gàmmu nag da di bis bu mag ci lislaam te amuñu bis bu ko féete kaw ci ab jullit ndax fàttaliku ki tax ñu bind la fàttaliku gën gi mindeef di ji gën a màgg